Euh, directeur de cabinet de Wade et mais sur ces trois minutes il devrait parler lui de sa vision de son programme donc là quand il parle c'est un sous-candidat li gënoon a yenu maanaa hmm. au moom mu doon dem di teg caution di mobiliser nangam wala sangam mu def ko comme ñeneen ñi comme Guirassy a comme keneen lu mu defee c'était facile ils pouvaient retirer leur candidature ils pouvaient retirer leur candidature pour dire ko nu on retire notre candidature on soutient Bassirou Diomaye Faye loolu la. Hmm. ah ouais man pour man loolu mooy logique. parce que gisoo daal benn yoon seen taxawaay ci campagne bi amutoon. amutoon solo daal donc ça veut dire ils deviennent encombrants. Ah. de mon point de vue de l'instant que ñoom dañu amoon une stratégie ah plurielle au cas où la le principal candidat ne serait pas passé. Hmm. ñoom ñu nekk ay candidats de substitution mais de l'instant que la candidat principal est là. bi conseil génnee rek ne. Hmm. Bassirou Diomaye Faye jàll na Habib Sy jàll na yéen mu leer leen ni ay pneu secours ngeen taxaw leen ngeen ne on retire notre candidat et puis ça permettra de donner plus de lisibilité mais imagine tey Habib Sy ce comme base affective am xam naa ay ay jeunes am ay ñoom Cheikh Omar Ndiaye ñi mu am Linguère ak ñeneen ak ñeneen mu dajale voix ñoom yooyu yëpp vote bi mu xëppaloon ko euh, ci euh, Bassirou Diomaye mu ëppoon importance. oui mais. su doon comme ni nga ko waxee ni su doon ni ñoom dañu retiré woon seen candidature ñu yegg ba à ce niveau ku ne war a am 3 minutes te yow gis nga ni Bassirou Diomaye yi kon boobaa nu ñuy def. waaye Bassirou lu minutes encore que non même su ma doon Bassirou du sax génn RTS xoolal yow gis nga seen campagne bi yow gis nga ko. campagne bi ngeen. Bassirou Diomaye gis nga campagne bi. <laughs> loo bëgg a feeñal foofu. non li ma la bëgg a wax c'est-à-dire c'est c'est une évidence. <laughs> cest à booy seen bopp seen def ci seen essence ñoo koy campagnal seen bopp mu nekk une marée humaine ils n'ont pas besoin d'appeler génne yenn moyens maa be bi bi ma xoolee sax ma ne ñii tey ñoo nëbb seen doole ñii buñ continuer ni gars yi dinañ ne élection duñ bokk de dañ koy bàyyi de parce que lii ma gis ni c'est une déferlante donc tey hmm. euh, du point de vue politique ça commence à se dégager ah, ah. ah oui si tu lecture ngay ngay ngay observer yeneen candidats ils sont là ils existent Euh, ñeneen ñi am nañ seen apport. Hmm. mais tey mooy bipolarisation bi ma la doon wax. Hmm. ñu koy bañ a dégg. c'est le prolongement. gis nga dëcc aussi ah. ca ngay yooyu baax na c'est-à-dire xam nga damay fi fii ñu toll nii. boo waxee sax day mel ni da ngay faral kenn. waay fekk wala da ngay wala da ngay naan dama bëgg waaw mais quand tu constates tey derrière Bassirou Diomaye Faye de soutien. quand même tous ces gens on des ont des carrures ont des postures. Hmm. et ensuite du point de vue politique aujourd'hui on a une bipolarisation. donc euh, c'est vrai que il peut y avoir des énormément de surprises. mais tey les deux favoris en tête c'est Amadou Ba et Bassirou Diomaye Faye. tey ñaar ñooñu la. mais ñoom ñoo génn en tête c'est-à-dire même bu fekkoon xooloo sax euh, rapport de force yi ba pare li graw ci mobilisation dafa am benn effet bu muy def y a des gens yoo xam ils sont indécis. oui mën na leen xëccaale. am na ñoo xamante ni amuñu seen candidat bokkul léegi dañu xool kan la ñu war a sànni dañu xool kan moo sérieux parce que le Sénégalais il aime voter utile dinaa bëgg Pa Ousmane. sama xarit la candidat la mais je sais que su ma votelee pas Ousmane mënul gagner. ok damay xool sama carte man fii ñii kan moo kan laay miser. doo ku gën a jege gagner. voilà c'est-à-dire les Sénégalais ils sont comme ça am na ñoo xam ne ils vont observer maintenant l'enjeu c'est est-ce qu'on va aller vers un premier tour ou hmm. analyse yëpp dina am solo <laughs> bu Cour suprême génnee ban élection am na parce que toll nii kenn xamagul lan mooy. la may wax xanaa mënoo wax lii ba pare. Ah. bëgg refroidiraat nit ñi ci delluwaat ci loo xamante ni ay ay ay donc mooy ni il faut kon Cour suprême a àddu ñu. xam waaw ah ñu xam ni ñun exactement comme mën naa àddu après ah. waaw lépp mën naa ne. <laughs> après élection lépp daal lépp daal mën naa ne mais en tout cas fii ba pare beneen bi gars yi stratégie campagne bi ñu jël ni xam naa nañ fay sama maam Ablaye Wade droit d'auteur. il ñu fay ko parce que Ablaye Wade moo fi def caravane ah marche bleue. Ah, parce que boobu n'avait pas les moyens du ah, mu ñëw créer marche bleue si mais là. Hmm. am na benn candidat boo xam moo ma yee. xam nga ni kooku du ma ko voté. <laughs> moo la yee. barki alxuraan bi mu rëqee affaire bi fi ma tëdd noonu. xam nga célibataire laa ndes laay tëdd karo yi di di vibré. tu tu imagines euh, cette puissance ba pare. maanaam genre sono yooyu nga xamante ne comme ah, waaw yu am doole doole voilà donc euh, candidat bu nekk yaa ngi am sa sa woy bu nekk donc nga gis si ferveur bi leen rek laa di déplorer te di ko ñaan gars hmm. ñu dimbali ñu ci mooy cette violence elle n'a pas de sens quand même mal non muy ci siège muy muy muy muy muy parcelle muy feneen ak feneen cest à il faut qu'on comprenne que compétition électorale c'est des arguments c'est des programmes c'est des projets c'est pas avec des coups de machette c'est pas avec des des des coups de fusil c'est pas avec des pierres qu'on va construire pays. Ouais. parce que dama jàpp ni tey la kañ. tey la mardi. mardi. Hmm. bu ñu jàppee ne élection yi le 24 la. le 12 je crois. daanaka fukki fan la mu jeex. Hmm. bu fukki fan yooyu jeex na Sénégal day continuer nous on va continuer à boo ci gaañee nit cicatrice bi day des bu la gaañee cicatrice bi day des. il faut dama xamul sax lan moo koy justifier en fait amul yaa lan mooy justifier le fait que ba pare mooy phrase bi may wax la politique c'est une affaire de gentleman ndaw si yaa ngi moom a ci yem ku nekk dangay ñëw doxaan si. Hmm. ku mu bëgg mu jox la boppam. waaw jeex na c'est-à-dire il faut ñu comprendre que ñu nekk ci ci mbir moom parce que man su ma jógee ma song la suba mën ngaa ñëw nga song ma. soo rombee caravane ngeen nekk ci kër ngeen jël xeer sànni ca caravane ba. Mm. ñu jóge ca caravane ba for xeer delloo leen ko. donc il faut que ñu dépasser loolu maintenant mënuñu am une génération ñu ne ñun jàng nañ am nañ citoyenneté dañu bëgg démocratie ba pare du ñu nangoo nekk ay démocrate. Mm. pour avoir une démocratie il faut avoir des le ku mu neex amal sa opinion bu la neex. Mm. ku mu neex na fara ku ko neex. parce ku nekk kam faral. mais xool ko ci weeru koor gi ñii bis bi lañu woor ñii woor bi sa topp amul mm. problème parce que ku nekk yow ci lool am nga sa argument bu valable boo ko teg te kenn du lu ko dindil il faut qu'on arrête d'alimenter la violence il faut qu'on arrête d'alimenter la violence elle ne mm. sert à rien la preuve des gens sont ont été morts après on a mis une ñii dee woon perte nañ non il faut qu'on arrête ça bu ñu kenn incité ci violence même bu la nit provoqué sax woole ci violence sax moytu ko teggi ko waaw. ànd ak leneen Cheikh Oumar mooy bis bu jot nga gis ku annoncé ni Sonko dina génn ak Bassirou Diomaye ba tey. waaw waaw mais yow euh, <laughs> grand li ma gis nii dafa ndaw gaa yi fees dell comme fu ne ñu nekk fa léegi boo génnee Bassirou génnee Sonko teg leen fi ah, tons fa lay jaaree génn pare rek. gaa bi gaa affaire yi dañ ci tergiversé bugguma ko woon wax ndeysaan su ma yaay xam nga dafay parfois du intéressé aussi mbiru politique damay toog ma toog rek mu xam naa rumeur yi xam nga ñoom day egsi si ñoom ma ñëw rek waa Omar naka naam ko ma ne ko bàyyiwuñ ko de mu ne waaye nañ bàyyi jaamu ki deful waxul man dama koo yërëm sax liñ ko teg yëpp xam nga ma xool ni waxul politique mais yërmaane bi ak question yi muy posé normalement Bassirou Diomaye Faye devrait mener la campagne comme tous les autres candidats. comment. parce que on dañu amul volonté bàyyi Bassirou Diomaye fay parce que dès l'instant que conseil constitutionnel valide la candidature de Bassirou Diomaye fay loolu moo perturbé li fi am ni yépp nag loolu la nag Bassirou bi mu nee bërël rek dugg booy séeréer laa séeréer ku am bopp la bi mu duggee ci ci ci làng ba la carte gi jaxasoo. comprendre mais léegi tu imagines ñu bàyyi ko ci context bi. non waxuma la waroon nañ ko bàyyi bu yàgg. bi ñu fiy bàyyi ñi ngoone saal di indi détenu yi. waaw Basirou du fa affaire du détenu. nan lañ def ba bàyyi ñooñu. lay laaj comment on a fait pour libérer ñooñu. bàyyi rek xëy rek bàyyi la. waaw mënoon nañ ko moom tam mënoon nañ xëy rek bàyyi ko. waaye defuñu ko. ba pare ñooñu ñëpp dañ leen accordé sax liberté provisoire mënoon nañ ko jox Bassirou Diomaye Faye c'est vrai ou c'est pas vrai ouais. parce qu'il a été arrêté dans le même contexte et dans les mêmes circonstances n'est-ce pas ils ne l'ont pas fait et pourtant Bassirou Diomaye est présidentiable ça veut dire demain Bassirou Diomaye Faye peut être ton président et mon président et le président de Macky donc qu'est-ce qu'on retient au Sénégal il y a un opposant candidat à l'élection présidentielle en prison, prison. mieux encore bi ñu ñëwee ñu ne dañuy teg amnistie. kat moo teg amnistie waaw mais nguur gi moo indi amnistie parce que c'est un projet de loi. c'est pas une proposition promulgué wuñ ko. waa mais yow bi nga amee projet. mooy am nga yéene. Hmm. bi ngay am yéene. te am nga yeneen bunt comme moom ci amnistie bi la war a bokk jaru ko nañ ko libéré.